tijaani sama waay la camiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub cëy lu xew ma jàmm mais met waaw waa Angleterre am nañ ndam ndeysaan xam nga dama def vidéo léegi ci néeg bi ci kaw ci sama chambre waaw jal CD yi dugal ci valise yi wan leen ko ne leen maa ngi ñëw insha allahu rabbi mardi mayoon na vidéo bi son excellence président de la république jàmm réew mi président Waly Ballago Seck xol ba sedd goy xam nga moom dafa bëgg waa Gambie président dafa bëgg waa Gambie dafa am ñoom cofeel mënuma mhm. Omaro defaatal vidéo nga wax waa Gambie ne leen maa lay bunge damay mhm. ànd ak yow ñu dem ba ca gaar ba incha allahu rabbi sopp yi ñëw ak ñi moom CD yi ma signal leen ci seeni CD jël ak ñoom ay foto dellu soit Paris avec l' international monsieur le ministre Metso waaw lu gën a neex li maa xarañ loo baa ñëw bañ a ñëw. Angleterre dana wàcc de. lii de mooy kaa ma xamal la benn affaire la. kenn mës ta gis lii. ki xosim ñay la. barke Serigne Bamba kon nag yéen yéen ñi jëndoon CD yi te may ñëw dinañ ko livré. gaaw leen mardi incha allahu rabbi daal leen jox heure bi ngeen ñëw fekk ñu si gaar bi président na ñëw ñun signé ko ngeen jël ay photo xol ya tooy ñëpp kontaan kontaan continuité la jaajëfati. jëm. sama waa jee bari baatim awana bi firi sama jege bu diis teg valise yi ba nga tegee valise yi teg sac ba def sa njàggee laa xam ne valise yi tubarkàll fu jaar duy fa seede mu wayaase album foo jaar ñu duy ko ci valise yi mu wayaase jóge ci réew tàmbi bitim réew jéggi frontière waa Gambia people waa Angleterre seen xol na tooy seen xol na sedd waajal leen pare naa takku naa ba dëgg la lépp baax na tubarkàlla macha allah suba la lundi Sénégal day football dañuy dem supporter ji ko seetaan match bi waaye mardi maa ngi yéen a añu match up mardi Angleterre dana wàcc Alaaji Baye Zall mardi Angleterre dana wàcc ba zéro jëlal ma lii jëlal ma lii match up waa Angleterre ko moom te nag premier arrivage la premier vague la maag bi nag dana dem mardi wasalaam jaara busu wala man se jaara